marché marcher tous les vendredis. La marche, le rassemblement pacifique est un exutoire dafay tax nit ñi bu ñu naroon jël pistolet duñ ko jël bu ñu naroon jël jaasi ñu ko jël bu ñu naroon xeex duñu xeex. Ce qui pose problème, c'est les manifestations que l'on interdit. Mmh. Et si on se souvient en 2011, de 2011 à 2012, tous les mois, il y eu manifestation et elles ont été autorisées. Et même s'ils n'ont pas été, si elles n'étaient pas autorisées, Moussoul am problème, à part le jour où la candidature de Maître Ward a été validée. Donc, quelque part, c'est comme si, en fait, le politique, il est éduqué, il est formé pour être amnésique, pour, pour, se, pour, pour oublier. Fatengue, 2011, moi aussi Fatengue 2011, parce qu'effectivement, Il parle qu'il n'a jamais été au Parti démocratique sénégalais. Il parle comme s'il n'a pas été là euh, lors du ticket bloquant. Yow aussi, tu parles comme si Macky Sall ne venait pas avec son matelas à la place de l'obélisque pour demander aux gens, sortez, on va dormir ici. C'est lui qui avait théorisé les matelas. Les matelas ne viennent pas des Sénégalais, des Donc, il faut aussi qu'on rétablisse la vérité parce que dëgg rek la Yàlla bëgg. Donc ça, c'est important. gis nañ ni manifestation buñ ko tere ci la ñuy gën a dépenser xaalis mais on l'autorise te buñ ko autorisé du am xeex nit ñi dañuy mayante ndox di way di fecc ku nekk wax Macky lu ko neex wala wax wax waa parti au pouvoir lu la neex après nga dem ñibbi sa kër et le problème est réglé mais c'est ça une démocratie une démocratie c'est laisser les gens s'exprimer librement et encadrer l'expression des gens qui ont décidé de se mobiliser parce que une démocratie li tax mu am solo ci elle li tax mu tax muy respirer c'est quand les deux camps qui font face sont d'égale dignité et on ne peut pas dafa am lu ma apprécié wul parce que en fait moi je pars de petites analyses ah fan yële passé on circule un peu partout avoir arrêté des rebelles qui voulaient participer à la manif passée mais une crise dañ koy gérer même bu fekkee loolu am na si on met l'accent sur la sensibilité de la zone et les antécédents qu'il a eu dans cette zone-là ak zone boobu ni mu sensible il y a des informations qu'il faut retenir nga def ko top secret du génn kenn du ko kenn du ko wax beneen affaire bi ma apprécié wul il y a de la manipulation de tous bords quand quelqu'un écrit sur les réseaux sociaux un journal ah en ligne, un magasin en ligne qui écrit un massacre à Ziguinchor. On tire à balles réelles. Oui, même si on tire à balles réelles, le massacre. Est-ce que xam nañ lan mooy le massacre? Le massacre. Non, c'est lourd. Il faut que les gens fassent attention. Et puis on est dans un contexte de hausse des prix de denrées de première nécessité. On est dans un contexte de hausse du carburant. On est dans un contexte de oui, on a la psychose de du blé des prochains mois parce que ñun mburu rek lañ bëgg grand papis bu yeewoo lekkul mburu day day day day day bu nekk der yow après naa la boole parce que am na lu ma gis et puis <laughs> dinaa la boole parce que am na lu ma je vais tout raconter avant la fin de l'émission et puis sacré malade il a il a des astuces pour nous dérider. ah ah non non macha allah. li ma wax. man gis naa. non non que le sujet tellement sérieux. eh eh malal malal toi aussi quand bu ah, sax. franchement. ma wax. non malal n'est vraiment pas ah, sérieux. heureusement qu'il n'est pas ah, sérieux. ah oui. beneen affaire bi beneen affaire bi. sacré <laughs> ci rapport de force. le, le pouvoir menace avec. Ouais. le pouvoir le, rapport, de rapport de force. mais opposition bi xam na ni le rapport de force dafay gagner si parce que on doit parvenir à dialoguer même dans la diversité des des opinions on doit parvenir à s'asseoir sur la table pour discuter. aujourd'hui l'Ukraine et l'URSS sont en train de trouver des voies pour parler parce que en fait ils sont dañu sonn ci xeex bi. parce que xeet bi arrangé wul Russie arrangé wul Ukraine et que on n'acceptera pas nous Sénégal que des politiques nous tiennent en otage au nom de quoi ce pays on doit le laisser respirer beneen affaire bii ñëw mooy ci contexte tabaski lañ nekk ak korité nit ñi dañu am stress wu am xaru tabaski ak jasneer yu ñuy jëndeel seen jabar ak cheveux naturels boo ko boolee ceeb bi ak diwlin bi yokk quand tu convoques les gens dans une manif c'est une opportunité pour pour dajji ay magasin dañuy dajji mangis yi mangis mooy magasin dañ koy dajji c'est-à-dire non il faut que il faut que gars yi bàyyi maayin ci affaire bu demee et puis beneen affaire bu bu gën a graaw cette interdiction là ni muy yàqalee le pouvoir mooy gën a graaw nu mu koy arranger pourquoi parce que en fait ça radicalise l'électeur et puis après finalement même l' électeur indécis électeur nga xamante ne amul ku muy voté mais il se dit que finalement l' opposition est une victime il se dit que les opposants finalement yërëm naa leen a ah ndeysaan doomu Sonko dafa waroon jàngi ñu téye ko ah ndeysaan mais et puis pourquoi aller chez les gens pourquoi aller chez les gens on n'a pas besoin de ça pourquoi pourquoi si on a une armée une si on a une police bien organisée bien formée on n'a pas besoin d'aller chercher les gens chez eux ce type d'intimidation nañ ko bàyyi ay dëkk yu mel ni Congo dëkk yooyu la doon am il ne faut pas qu'on il faut dañu am ay acquis démocratique nañ ko gérer et que qu'on joue la carte la plus claire alors que tension bi instant bii nii dafa bëri parce que rab rupture de confiance bi dafa installé wu ba pare di gën a aggravé wu parce que récemment le président oui wax bëri na trop bien que je partage pas tes propos. non non non bu la neexee. kaw sa welaama kalo ko kaal mi xoo da jafeen. kaa kawama mais xam nga beneen affaire bi mooy. xam nga les nit ñi dañu taxaw ci ay affaires par exemple fan yii nii ci sommet ci affaire u CEDEAO sur euh, la limitation des mandats président am na lu bañ na signer et cetera et cetera c'est un ensemble de choses yoo xamante ne c'est ça ne met pas les Sénégalais en confiance bu ñu nekkee. on a vécu des événements très douloureux en mars dernier. Et on ne doit pas revivre ces événements-là. Mm-hmm. Parce que c'est la jeunesse qui va c'est la jeunesse qui va mourir dans ces événements-là. Mm-hmm. Parce qu'elle constitue une force pour l'opposition. Mm-hmm. Parce que quand tu y tu dis, écoute, hein, on appelle les enfants dans la rue. Mais quels sont les enfants qu'on appelle dans la rue C'est les enfants à qui on a vendu un rêve. Et qui n'a pas vendu un rêve à, aux jeunes képp ku bëgg a installé wu ce sujet l'élément la locomotive sur laquelle tu veux t'appuyer c'est la jeunesse que aujourd'hui on doit on doit se poser les bonnes questions pour dire écoute il y a des choses pour lesquelles nous en tant que jeunes on acceptera on on ne l'acceptera plus il y a des choses pour lesquelles yoo xamante des acquis démocratiques on va obliger le pouvoir à respecter ça le droit de manifester est un droit inaliénable loolu c'est un détail nañu bàyyi gars yi ñu marche et puis ça lan lay yàq absolument rien les gens doivent manifester sama nijaay nga bëggoon na dama lay rousser googoo nee na gaale Gassama quoi. allez <laughs> Bouba bismillah ci tour de table bi Gassama tu vas répondre bu dee da di.